tey ñu ngi qui euh, euh, ci cadre bi nga xamné ne euh, forum sur le développement des services numériques bala may wax ci lolu nak dama bëggone sargal président de la République Macky Sall et l'équipe gouvernementale ci succès bi nga xamné am nañ ko feulé ci Paris euh, ci ndaje bi nga euh, groupe consultatif bi nga xamné moy première journée bi euh, on est très fier parce que objectif bi nga xamné mom le Sénégal amone pour out financement complémentaire plan Sénégal émergent bo xamné ken du ci lam lamé lenn ci pertinence euh sunu ci président de la République bi nga xamné amone objectif mobiliser lu toll ci 2.850 milliards mm, jot nañu collecter mobiliser lu toll ni 7700 milliards de nos francs lolu nak euh, mënuñu wax succès bobu té tudduñu li nga xamné mom moy le secteur de l'économie numérique lolu amna ci wàll bu am bu am solo euh, donc le numérique amna ci wàll lolu motax euh, forum bi nga xamné mom lañuy def ni euh bu gënaaw buñu amé succès succès da fay permettre li nga xamné mom lañuy discuter fi comme solution comme euh, décision yi nga xamné daf ñuy permettre suñu réew gëna jëm kanam ci développement du numérique mën nañu japp né euh antuna euh, parce que li nga xamné mo waron tax lolu am yalla jappalé na jappalé na ci Sénégal dañ ci sante yalla bu baaxa baax nous nag li ici, nous fii dañu réunir acteurs les acteurs écosystème bi euh, les opérateurs euh, titulaires de licence euh, les fournisseurs de services à valeur ajoutée les fournisseurs d'accès internet et les acteurs ADN mu ngi fii mooy ñi dañu fournisseur de services à valeur ajoutée le ministère ak le collège avec le fonds de développement du service universel euh, pour waxtaan ci naka lañuy fexé ba harmoniser suñuy position euh, invité nañu aussi euh, CNRA invité nañu CDP courel yi nga xamné ñom tamit dañuy saytu li nga xamné tay laalé nañu ak le secteur du numérique mooy tey dañuy gis ni dañu wara jall ci euh, de régulation sectorielle à la régulation euh, multisectorielle euh, loolu nag ko waral mooy tey service yep dañuy utiliser numérique donc warne ARTP di waxtaan ak ñi nga xamné secteur yi nga xamné nekkul périmètre ARTP Bo jëlé tay le smartphone la télévision sur le smartphone amul woon démb ak barki démb boo jëlee le mobile banking euh, boo jëlee le mobile money boo jëlee la presse en ligne euh, boo jëlee la vidéo à la demande qu'on appelle la VOD yu bëri bëri ñu ngi développé wu tey ci euh, banqaas bi nga xam ne moom mooy le numérique donc loolu nag daf ñu war a ci concertation permanente bi nga xam ne war nañ ko am ñun ñi nga xamné ñun lañu ñu régulation secteur yi waxna sank régulation sectorielle bi il faut ñu jall ci régulation régulation multisectorielle lolu dafa war ñi nga xamné ñom ñoy ñooy CNRA ñi nga xamné ñom ñoy CDP ñi nga xamné ñom ñoy banque centrale invité nañu leen ñu ngi fi ñoo ñep dañu wara bok euh, bokk laxasaayu euh, ensemble pour que questions yi nga c'est des questions transverses pour que ñu mun leen adresser waxtan ci ba trouver ci ay solutions lolu mo waral sunu ndaje tay ndaje mi nak bi 3 troisième édition am bu soobee yalla tamit euh, at bu nek fas nañu yéné réunir acteurs yi ci anam yu melni pour gëna waxtan atelier yu bëri ay ay ay atelier war nañ ci euh, def ay atelier ci thème yi nga yi nga xam ne ko sank dinañ ci wax euh, la protection de données personnelles euh, dinañ ci wax naka lañuy ñuy euh, l'économie numérique euh, dinañ ci wax li nga xamné mom moy relation entre banque centrale aujourd'hui avec le développement du mobile banking question yooyu yëpp expert yi fi nek dinañ ci waxtaan ba teunk li nga xamné mën na jëriñ ëlëk li nga xamné mom moy économie sénégalaise économie numérique numérique nak nit ñi ñu ngi wax bu bari bari bari, bëri laaj euh, ñu leeral lan mooy économie numérique euh, économie numérique du lenn euh dul euh, l'ensemble des activités économiques et sociales ngén balma nak ci ci ci ci ci ci nasaraan bi li nga xamné li len wundu euh des plateformes yu melni plateforme réseau internet yi lu melni réseau mobile nous réseau cap des capteurs nous commerce électronique qui sur le plan économique et social loolu euh, l'économie numérique Nous économie numérique te waxuñu le développement social l'économie économie numérique waxuñu li nga développement économique si secteur yep nak, amul ben secteur bu est développé développé li nga nous avons numérique le président de la république dans sa clairvoyance euh, nous, peloton de tête pays africains, qui euh, euh, développement du numérique C'est nous ñu ngi avons acteurs que je voudrais féliciter et remercier merci beaucoup